waaleykum salam adam ma nglay fay di nuyu waggi Guédiawaye info yep di ñaan yalla suñu waxtaan wi yàlla ci jël njariñ ci barkent bi. non grand avant de ñu tambali waxtaan bi ci euh, loo am te am na solo ñu remarqué muy sa relation ak balé ni numéro 2 parce que gis nañ sax dem na ba mom su amé combat euh, sa njaboot dañuy dund événement bi pleinement ñu gis. Euh, góor ñi dañuy faral di tenn seen bopp jigéen ñi wut ay tislu Balla Gaye numéro 2 pour wane ne rek ñoom bis bi ñu ko ci accompagné sa relation ak moom kañ la tàmbali ak lan moo lalu ci biir ba genre relation bi waaw adama loolu moom dinaa sawar wax ndax Omar ñu gën koo xam si Balla Gaye 2 sama rakk la siiw boole wuñu mën a bëre boole wuñu nekk sama rakk suñu kër yi jàkkaarloo woon daanaka si géew yi papa ak sama bàyyi la won ndax ay dëkkandoo lañ won mu mag màggandoo ci ben gox di ànd ak rak galas ñu doon ko xam ci aykoon nekkandoo woon ci école ba mu def ma mag ma def ko rak ñu àndandoo woon nekk ci biir école bi di jang je me rappelle très bien su sana chaque jour amul bés su ma saan a jóge entraînement sama place lay toog moom ak ñoom Mamadou Lees nga koy nuyu au passage ak xaritam yépp ak galas suma rak suñu ñëwee ginnaaw ci yàpp laay jaay sama yaay doon jaay ndékki foofu suñu ñëwee ma defar leen ndékki ñu suur suñu ba mu am combat galas dootul bëgg du bëgg mu ñëw galas mooy aygoon suma rak bi dem Espagne

ubbi école bi teete leen bañ egsi fii bu may xool ma koy xool bët boobu rek la ñuy xoolante bëggan diggante mag ak rakk ànduñu ci xew ànduñu si dara lépp luñ ko mën a wax rek pour mu doon li mu war doon dañ ko koy wax tranquillement moom tamit mu dégg ko tranquillement après ñu kon dem waaw mu doon relation boo xamante ni mën nañ ni kóllëre moo ko laal bu loolu weesoo ngeen mm. duggee ci combat boo xamante ni mën naa ni combat bu métti la woon mu métti aussi ci côté engouement bi coow li nekkoon ci ci biir autour bu loolu weesoo tamit aspect mystique mu doonoon combat bu mystique tey pour revenir ci préparation bi combat boobu nan ngeen ko waajale woon combat boobu dañ ko dañ ko wàcc ngor dañ ko wàcc ngor ndax avant Balla di bere ak Modou Lo bu njëkk ba dama waxoon gars yi ne Modou ndaanaan la mais taayam dina ko handicapé si làmb mën naa bëri nag am na jom xale bu mën làmb la ku dund làmb rek da par force waaye suñu boroom moo dogal ma waxoon jamono yooyu ni gars yi ah Modou de taayam mën na ko handicapé mën naa bëri mais doole doxul jàmm te dama waxoon ba léegi maa ngi koy topp ndax Modou bi mu bëreeg Balla Gaye tey benn victoire bu claire la amagul si lam muy contre Eumeu Sène victoire yu si ëpp da koy am par match nul contre Baye ma gis nga ni mu demee ba léegi Baye Mandione te su ne suy dem ay victoire am da ko siy boole mais quand ginnaaw moom lañ def victoire bi dañ koy nangul dafay mel ni loolu ma waxoon jamono boobu moo doon dox ba fi mu ne nii waaye ñu ngi ñaan yàlla ginnaaw suñu borom dëmbal nañ ñu bëree ba daan ko. ñu ñaan yàlla jàmmal leen ñoom ñëpp ndax ñoom ñëpp suñuy rakk lañ ni muy Balla Gaye muy Modou Lo ndax Modou Lo sax am nañu ay jaar jaar jaar jaar gu ma mag ak rakk ndax la géejawee réyul te géej ak parce yëpp benn lañu ñëpp benn lañu hmm. waaw mu doon benn préparation bu sérieuse comme ni ko waxee hmm. moo leen waajee combat boobu hmm. mais ci kaw loolu mu am benn élément boo te ne maa ko tuddee élément perturbateur c'est-à-dire mu am benn coow loo xam te ne bëggoon na bi ñu dëgmalee combat bi Mm. benn audio boo xamante mm. te mën naa ni sa tour nekkul au centre nekk ci centre problème bi. Mm-hmm. fu ñu tourné dañu mm-hmm. ko moo ko sax ndax su ne ku sàcc sama mbir dafa réer ku tiit rek ci yaa ko jël man gor su set wecc laa dëkk Guédiawaye xale yi di samay rakk ni Balla Gaye nekkee sama rakk noonu la Elton nekkee sama rakk. moo ma la gën a xam xam na ma bu baax a baax mbir mi ni nga ko dégg ni laa ko dégg <clears throat> ba ma ciy wax laaj moo ma ci dugal waaye li ma ci gën a neex mooy bokkoon na ci li ma wax ci jamono bi may laaj waxoon naa kenn ci ay nitam ni leen Elton nee na day porte plainte ma ne porte plainte bu mu ko bàyyi na ko def ndax suñ la waxee ne yaa def nangam nga ne defoo ko kaka wax toog ni yaa ko def te nga am nday am bàyyi ëllëg ngay am jabar am doom da ngay leeral sa bopp man nag jomb naa wax ne elton moo def ndax géejaway bokk naa si ñi fi yor puso te du ma ko bàyyi ndax lu bon lu lay may lu baax mën la may lu bopp ma lu ñaaw xawma lu bon ay Elton déglu naa ko bu baax a baax ba déwén du ne gannaaw li nga war a wax xam na ma xam na ne seen mag laa man mbëru géejawaay yii yàlla nañ nekk ay milliardaire mais dañoo ñoom ñëpp dañoo jaar ci ñëw ci man ma leen di jox li ma am te yàlla rek tax ak bokk ak dëkkandoo ak ñu doon samay rakk amu ci kenn koo xam ni bëre nga ba doon champion te suñu borom boole wuñu ci loolu su ma doole sama ñàkk suma temps lépp parce que su may rakk lañ man boolewuñu mën a di boolewuñu am boolewuñu ñàkk boolewuñu su may rakk lañ géejawee loolu moo fi nekk géejawee ñëpp benn lañ ñëpp benn lañ mais yëguma ko sax ndax Elton ndeysaan daal déglu naa ko moo fa pare tudd ma duma ma tudd magam laa nit du yàq magam te leer na ko ni lu mu mën di doon duma ma si wax lu ñaaw moom la xam na ko comme ni ko Balla Gaye xamee waxoon naa Balla Gaye avant muy bëre ni ko njiit mënta ñàkk ñii jàpp leen ngeen bennoo kenn kenn saxul bërki bi ma demee si làmb ji stade amitié duubalees sama bàyyi dama ko gis mu dox sama yaram daw ma xam ne àdduna lépp si lii lay mujj comme nañ rafetoo loo man lu mën di doon day jeex nañ léeg dëkk nañ ànd ànd boo xam ni su jeexee kersa du am nañu waxante wax joo xam ne su jeexee kersa du am Balla Gaye wax naa ko ni ko Elton Sara Elton ay frère ngeen jàppalante leen jàppoo leen lu jiitu te wax gu ñu waxe eh, wax audio bi moo tax mën naa di wax ak moom te xam na sama yéene jàppal lees ndax lees mooy numéro numéro lees numéro deux dama wax Balla Gaye ni ko sa baay ak baayam la woon waaye mën a bëre taxaw ñu tuddee ko Double Less déedéet dafa judd ñu tuddee ko Mamadou Sakho Mamadou Fall Baye Daouda jur ko wëralante ak wëralante ak Double bu tuddante moom doom dégg nga le Double Less tamit tudde mère Marème Thioub muy Marème ma ci kër gi ak magu magu Omar xuma rak Omar tudde ko doom muy and bo xamni man duko dindi ñàpp duko dindi ay frère lañ dañu wara and aduna amul solo nañ and hmm. waaw loolu leer na comme ni nga ko waxee say rakk la ci yàgg leen tàgg la yàgg leen accompagner ci bis donc nga bokk tamit ci kilifa yi nga xam ne dañoo nekk au niveau de géejuwaay yor pousse comme ni nga ko waxee war di rataxal diggante yi